mooy télé bi bégal sama askan laatum cochon chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama la nu mi dunde fii ci Ladoum TV TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar mbokk yi ñu ngi fii ci box numéro 163 bergerie Serigne Bass Abdou Khadre la ñu ñëw bergerie bii nag nga xamante ne ñoo nekk ci bi ci fi nekk da benn maal a xamante ne nag élevage Sénégal tàmbali na koo miin miin bu baax ci kaw pëjëm bi nga xamante ne tey macha allah tàmbali na koo yëpp yëg yëg ko nag yéegéen woo xamante ne yéegéen bu doy waar ñaari foire yi nga xamante ne moom la gis ngeen ku ci mel ni fekke ma ña ko fekkee woon ñëpp gis ni maal la boo xamante ne il est tout simplement équilibré nekk maal boo xamante ni bàyyi woon nañ ko xel bu baax a baax ndax lan ah tey marginal su ñu indi woon lu bett kenn buñ ne génn na ko yëg na kaw ko jëm waaye buñ ne jël yëpp premier doon ko woon jaaxal kenn mu ñëw nag confirmé li nga xamante ne mooy sa suprématie ci naan ñëw fekk ma jël premier waaye ñëw ci nga xamante ne moom mooy foire la bande jël ci premier mooy kan le mâle bi ñuy wax maraje maraje moo nekk nii seen kanam nekk mâle bi nga xamante ne vraiment moom mooy euh, le champion de la catégorie mâle adulte nekk mâle boo xamante ne def naa kenn ku présenté ñan ñoo ko indi ñoom la ñu fas yéene waxtaanal encore une fois mooy waa bergerie seen bés apporté moom vraiment ñu ngi lay jox. maa ngi lay sant bu baax. gërëm bu wér ma lay félicité comme ni la ñëpp félicité ci nga xam ne mooy ndax li rafet na macha allah liggéey maa wax na ni macha allah li mu am bett la yow ndax yow laa ko indi préparé wu ko wax na ko yéen préparé ma lañ jëlee tëggee avant muy dem tëggee dañ ko doon préparé ba ñuy dem tëggee ñun demuñu woon sax maanaam pour payer ak deux dañ demoon rek rien que pour natt ay maturation mais boobu ñu ngi woon si préparation mais ba mu jógee tëggee ba mu ñibbee ba mu ñëwaatee ñu ñëwaat fii c'est la première kon loolu dañ koy sant suñu borom bu baax suñu mën ñëw lépp nga rëdd suñu borom ndax yàgg na def ñu tey xëy na dañoo liggéey à long yaa xam te wuñ ko woon nag parce que ñu bëri yàgg nañ ñu topp naan maa ngi ko duggee xar du ko gañe te période boobu bu ñu ko defoon xar du ko gañe mais ndax après dinañ def ak ndax laaru mi li ñuy wax nag fii ñun dañ ko gëm muy suñu philosophie dañoo fragile ñoom comme ay filo de chair te ay xam ne kenn waru leen gatam dama gëm ne maalu laaru da koy bàyyi ba mu dugg adulte nga soog a dañ ko bàyyi ba mu dugg adulte am trois ans soog def ci moom moom te ko defee def moom moo waral tey nag te ngeen jéegul kaw ba jëm waaye tey defe naa bu ñu puusoon benn xar bu wàññi ba doon yëg kaw ba ndax dégg naa moo jëloon quatrième est moo jëloon quatrième loolu ñu ko doon santee suñu borom bu baax a baax parce que dafa jege woon xare te ñun mooy li ma la wax yóbbuwuñ ko woon loolu dañ ko yóbbuwoon rek ñu sant ay maasra xam ñi dafa nekkoon ci waajal mais ñu bëri pourtant ñëw nañ suñu bopp ñu que dañu bëgg ba pare xër fi maam mais ñun boobu xamoon nañ tey leen tey bu mel ni maal bi a njool ci soiru élevage ci maal yi nag moom mooy ku mel ni Bagoye moom moo ñëwoon indi woon auto au garage a njool benn loolu noonu lu doon xaar la parce boo xoolee pénibilité bi ñu bokk moom dafa nekk sur may direct parce que mooy li may wax dëgg boo xoolee yaayam sugul benn dañu jël benn doom Birame Ndiémé am daraan def maal bu que yóbboon noflaay bi jël benn doom Birame ko may Fra mu sal si ko yóbbu moom ki ñu jox Pape Sène ñuy xar ñoom ñaar ñoo bokk benn bàyyi sal si moo leen jëlaat famille euh, boobu noonu nga xam ne sër la sàkk pëlo ñu teg ko si murit murit bi koy wax murit nekk doomu soxla dafa moom bokk na jëlu pëlo bu jëlee pee dafa war a jël pee bu ko jël boo xoolee Adam tu te rappelles très bien kan moo baax lu ko teepee Aldiboo ba pare génn premier kan moo baax lu ko auteur Matuñe ba pare génn troisième ba pare d'après li nga waxaat ñu demaat foire Kër Massar boo xoolee foofu am cent moom mu ñëw ak 119 bokk xar yu suuf dara moom mu ñëw def 117. kon loolu ñu doon nañ ko doon nañ ko xaar. waaw mais leneen li si def ak sant yàlla la rek wér ak ñi ñu tuddee ñëpp gars yi jàpp ci ak ñaan yi ak li ñu yàgg a toog am lu ñu nekk xam ne nit yàgg nañu ko def ci concours yëpp mais tey lu jot yoon tey suñu borom moo ñu may lii tey. ndax yàlla dafa ne dafa ànd ak xaj muñ te ñu mësuñu ñu gagné ko def kon tey lii mu am tey dañ koy jël victoire bi déjee ko monde élevage tey ñoom ñoo moom lii tey ñu mënuñu yàlla rek aywa yàlla rek mën moo tax soobeel eh, maal bi nga xamante ne moom mooy eh, maaraaje tey moom moo yëg ñaari yoon ko jot ci moyen deux mois ñu deen di ñaanal ndam yàlla na ji allahumma ñun ñëpp ñu bokk ko ñun ñëpp ñu bokk li nga wax am solo muñ rek moo am solo tey lépp loo xam ne ñëw na moo tax ndam la te la dëgg la adduna moom noonu la quoi te c'est l'élevage qui gagne élevage fair la parce que ñun ay jeunes lañ yoo xam ne Pape mii mi ngi si liggéeyam yor société man mii maa ngi sama liggéey keneen ak keneen mi ngi si liggéey mais ku si nekk koo fi gis nañ ko dañ joxante cër parce que ku si ne da ngay bàyyi sa yitte ñëw nekk un bëgg xar bi ko yar ku ne mënoon nga toog sa yëf mais ñun xar dafa nekk loo xam ne maanaam te tam may lancé appel nguur gi nañ dimbali bu baax parce que xont bi cher na rawatina yarkatu laar bi bëgg a dee ndax ñii am na compte boo xam ne mënoo leen ko compte boo xoolee si laar bi jamono ji di jar rek ngi koy jaay sax treize mille treize mille cinq cent te cher saaku ngooñ boo xoolee di jar ay six mille franc te yarkatu laar bi société lañ yor xalaatal yow ku jël xar kër tabax ko kër entier yor vingt cinq employé employé bu gën a tuuti buy fay cinquante mille par mois ñi mën leen di fay cent cinquante mille ay caméra xar yi garab yi ñuy jël non nguur bu gëstuwul yarkatu laar ndax yarkatu laaj bi bokk nañ ñi nga xam ne tey ñu ngi jàpp ci maanaam jeunes yi nga xam ne ñu ngi chômé yoo xam ne tey yarkatu laa dem ci ay bergerie Sénégal ñaata bergerie yoo xam ne fay liggéey amaana bu ñu leen jëlul woon la di agressé wala ñu def leneen kon tey ñun dañuy lancé appel ñu dimbali tey yàlla rek compte bi cher na lool na si jàpp nañ si jàpp bu ko defee rek def lu gën a lool àndoon ak ay soxnaam. dëgg la parce que mën nañu waaw boo xoolee kii moom moo ko jur. moom moo moom moo jur kii. moo jur añel bi. waaw añel bi benn coordonnance la. moom doomam ñëwul quoi parce que doon def daanu. keroog bañ jugee Paar Kër Matar bi fajar ba maa ngi ñëwee après dañu dañu daal fekk mu daal mooy li gën la rek. dafa gën quoi boo xoolee kii kii mooy yaay kii kii mooy yaay waaw kii yaay bi dëpp lamb bi quoi macha allah. macha allah macha allah Pape Gueye macha allah Pape Gueye parce que moom suñu benn grand Cheikh Lo moo ko joxoon Fiara moo ko joxoon Fiara 2019 moom lañ jël ñu teg commande bi moo jël tam côté bi côté bi ci sœur ok moom mooy magu mbote bi. waaw moom mooy magu mbote boo xoolee ñaari xale yi rek lay dugg. parce que comme dañu ñëwoon tamit du ma la ko nëbu pour xeex ci. waaw moo tax ko déranger. boo ko duggul woon ma dugg ko ndax xam la indi benn femelle ak doomam. dëgg euh, euh, waaw doomu maaraal direct la moom boo xoolee léegi am na ay 18 jours. macha allah ay 18 rek la. macha moom ba mu juddoo nag ci tooy tooy bi dafa suñu benn gaañ sonn waaye xam nga rek mënuñ ñàkk séddu ko ko parce que élevage partage mais xam nañ ko ay mbota yoo xam ne ay doom lañ yu doy waar waaw ñu yéeme incha allah ku ko ñëw diñ leen aywa Mara Dieng xam nga kon day jot sëkk nag incha allah ñu dem toog waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa bergerie bi waxtaan ñoom ci li nga xamante ne moom mooy seen élevage seen jaar-jaar depuis kañ lañ ci nekk ak naka lañ ko dundee loolu bu ñu demee ci bergerie bi incha allah bu ñàkk dinañ ko découvrir mais vieux lan mooy sa mot de la fin nga fàttali ñu adresse ñu waaw bi usine ñaari kër Grand Dakar dibiterie am 77 352 39 41 yéen nag ñu leen di sant di leen gërëm mooy télé bi bégal